satisfaction de leur de leur préoccupations Inch'Allah. allah. waaw Mor Wara Gueye ñu gis ni yow yaay euh, le maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye nga le premier adjoint tey bay di say dëddu nga remplacer ko ci conditions yu métti yaakaar naa dem leen deuxième tour tey ñu bëggoon xam sa réaction bu njëkk lan la. waaw réaction mooy euh, di fàttaliku toujours Maodo Baye di sëy parce que c'était la première fois ci 7 ans yi ñu conseil municipal de teewu fa kon euh, suñu yaram daw Euh, am nañ métit bi nga xamee ne nii nee nañ ma man maa war a toog pour remplacer ko mais loolu la àdduna tëddee te loolu aussi tamit dara bettuma ci. li tax euh, en 2014 bi ñu watee aussi ñëpp dañ ne woon ne Mamadou Baydi Sèye moom mooy jiitu mais Mor Wara moo ciy topp ñu teg bureau municipal kon bu yàlla dogee mu jóge fi tey euh, ak lu métti métti métti métti man musuma musuma ragal ne conseil municipal bi day soppi doxalin dama mës gëm ne. lu mu métti métti bu doon juróomi tuur wala ñetti tuurit it allah damay jàll kon loolu moom moo fi nekk ñu xam ne ki fi nekkoon jóge na fi yàlla moo ko woo moo si ko yàlla na ko yàlla yërëm li si des mooy ñun ñi fi def desandi li nga xam ni moom la ñu war a taxawee pour que ñëpp kaaw fàtte nekk nekkam fii mooy lam fa nekkee woon ñu nekk fii lam doon doxal ci population yi ñu doxal ko lam doon rafetal ñu rafetal ko uuf njaboot gi gën a mën a nag taxaw di déglu euh, soxla ak tawatu population yi lu luñ ci mën ñu def ko ci nam ko daan defee ñu fexe nu ko gën a nu ko nu ko gën a rafet nu ko gën jàppandi ñu doxale ko noonu je moo fi des te incha allah ci loolu la ñuy taxaw. gis ne yow que euh, le défunt maire Mamadou Bédé Sèye léegi ngeen ñaari at tey ana population commune bu Ndiarème Limameulaye lan lay xaar ci yow dans les médias projet yoo xam ne ngeen ko pour taxaw seen ay jafe loolu am na solo li muy njëkk a xaar mooy lawoon koon fi ay ngëneel dara ban cee woon niku loolu dafa am solo te loolu xam naa ne pour doxal ko du jafe ndaxte man bokkoon naa ñi nga xam ne nii dama doon wéttali Modou Baydi Seye ci xalaat yooyu buñ ko wéttalee ci togg xalaat yooyu ba pare man la daan yebal ne ma demal nga xool ñu koy defaree nga defar ko ngir mu mën a nekk njëriñu conseil municipal bi mu nekk tamit njëriñu askan wi. kon loolu defe naa ne man du ma ci gan te am naa ci ay xalaat comme na ma ci doon indee ay xalaat noonu laay continuer rek daal di ñu tabax mi nga xam ne ni moom la ñu war a doxalee ci diir bu gàtt bi mën a indi la xam ne ni moom mooy li population yi di xaar. Euh, li teew a teew. te doon lu jàmp moom mooy inondation yi ba ba léegi ci même ci phase intérim bi ñoo ngi fexe di xool nu ñu ciy taxawee te yàlla mi ngi ñu ciy dimbali ak autorité euh, administrative yi nga xam ni ñoom lañ àndal di ko def leneen li ci des moom mooy xool yeneen compétence yu mel ni rentrée des classes muy la compétence éducation xool naka lañ ciy taxawee ba rentrée boobu mucc ayib bu loolu paasee nag bis bu nekk ak la cee war a xew mooy li nga xam mooy les événements sociaux ak li nga xam ni mooy les événements religieux nga xam ne ñu koy déggmal ñu xol nu mu gën a rek ñu taxawa ci ci li nga xam ni budget bi li ci dessandi attan nako lolu loolu aussi tamit dafa am solo. waaw ñu gis ni tu es l'actuel maire té euh, population bi amna lu bëri lu ñuy xaar ci yeen té da nga bok ci parti bo xam ne dafa nekk parti Rewmi bi nga xam le président Idriss Seck mom moko jité te nga bokk ci kàngam yi ñu bëggoon xam ana ban taxawaay tey la réew mi di am transition bi nga xam ne am na ci municipalité bi ana ban impact la am ci parti bi nga xam ne impact bi moom euh, xëy na tur rek turu bi rek moom moo ci dolleeku mais bu fekkee ci wàllu taxaw la ak ci wàllu liggéey li nga xam ne président Idriss Seck tegtaloon nañu ko digtal ñu ko ci wàllu taxawaay loolu rek la ñuy continuer di doxal loolu moom mooy lan moom mooy fexe ba conseil municipal bi nga xam ni bokk nañ ci am ci ay cër. Nous doxal ko nu mu gën a rafetee ànd ko nag ak ñëpp bañ xejji kenn loolu dafa am solo euh, beneen bi aussi tamit ñëpp xam réew mi parti bu ndaw parti réew mi ci di nga euh, commune bu woon ci pouvoir en 2014 taxawaayu réew mi la woon parti réew mi tamit di euh, ville au niveau de la ville commission yu am solo yu nga xam boo xoolee commission euh, finance parti Rewmi moo ko yor boo xoolee commission santé moo ko yor ak une commission yi nga xam ne am solo yor nako ci ville bi diko doxal kon réew mi fa mu rek lay gëna famu la rek fa lay fa lay fa continuer taxaw xol nak maintenant euh, jëmi maire ji ak mbubu maire bi la nga xam ni mën nañ ko indil ñu demaat jëli ko ak fu mu mënti nek def ko xéewal jox ko population yi faja ko seen soxla faja ko seen aju waaw ñu gis ni élection yi léegi lañ ko dëgmal fële ci mairie bu Dakar bu bu bu bu bu bu Géejawaay commune bi mais gis nañ ne dañoo seetlu yenn ci ndaw yi dafa mel ni am nañoo ak yow ci tànneef bi gis nañ leen ils étaient euphoriques yuuxu nañ fa wane seen amertume ñu bëggoon a xam tey ana ban réaction nga am ci lool waaw li ma ci am rek mooy di leen ci sant bu baax di leen gërëm parce que àdduna moom mooy doxe noonu démocratie mooy doxe noonu mais xëy na ci démocratie ki nga xam ni moom moo gën a fës di ñaxtu la ñuy gën a gis mais aussi ndawi avons occasion la ma gërëm Nous sante len ñom ñep dañoo tew te ci ci yar ci parce que lool la président Idriss Seck sante man mi tamit ci li mais aduna mom moy demé non na nañ ne euh, ki ñu andalon mo mais conseil municipal bi nga moom moo ne woon Bayrou Seye mooy jiitu en 2014 Mor Waré topp ci bi Bayrou Seye demee même conseil municipal bu moo ñëwaat ne kon loolu Mor Waré moo fi mën kon conseil municipal bi gatché ngaalaama lañ waxoon dem amul dara lu ci soppeku li ci dess nak mom moy nangu dogal bi man fal nañ ma mais jàpp naa duma du ma réew mi du ma meeru parti ah dama nekk meeru commune bi ba ci nekk ku nekk na la talal loxo ci kaw respect ci kaw wéganté ci kaw aussi jappalanté ci kaw aussi tamit xaritoo ak également ci kaw nekk ay rak ci kaw loolu defe naa ne ci lañ mën a doxale mairie bi parce que maire maire ki koy teg day nekk lu ñuy mérité mais du nekk lu ñuy hérité du nekk maanaam lu ñuy donn man nag dinaa fexe mérité ko mais ñun ñëpp tamit nañu nangu respecté ko bu ñu àndee ci loolu rek euh, division bi day jàll suñu ginnaaw parce que candidat yi boo xoolee defaat nañ acte d'allégeance nangu nañ ci biir unité boobu ci lañ mën a doxale mën a ci biir loolu dinaa leen nangul loxo boobu ñu ma tàllal ànd ak ñoom ñu liggéey lañ daan def incha allah diir bi li muy gàtt gàtt gàtt daañ fi teg lu nga xam ne nii dina doon lu ñu mën a gën a a teg ba incha allah. jërëjëf monsieur le maire merci beaucoup maa ngi leen di leen gërëm.